évaluer les solutions de remplacement évaluer les impasses te li tax ma ñëw ànd ak madame ay Mbodj nga xam ne moom moo yor DER muy délégation à l'entrepreneuriat rapide mooy kuy ut entrepreneur ñii ñooy entrepreneur yi jël nañu xaalis di ko jox ay nit yoo xam ne parce que ay militant la ñu rek mosuñoo liggéey waaye bi nga xam ne jàng na liggéey xam na ni muy liggéeyee commencé woon na liggéey ko kenn jàppale ko ko jox ku na lu war a mën a def moo tax nañ leen recevoir waa DER nañ leen recevoir madame Aïda Mbodj na leen recevoir ngeen toog waxtaan ak ñu xool ñu leen di jàppale aussi ci ay financement gannaaw solution boobu ñu wax ni nañ ko def ci ay place yu ngeen mën a liggéey ni mu gën a rafetee di masawu riverain yi di masawu commerçant yi waaye di masawu mairie bi ak administration bi ñu ngi leen gërëm leen sant asalaamaaleykum jërëjëf effectivement que état bi day liggéeyal ki nga xamante euh, ci li nga xamante ni fii moo yi euh, opération de désencombrement bi premier ministre euh, nee nañ euh, koy def ak humanisme nañuy waxtaan ak xale yi waaye itam nee na li nga xamante ni moo di DER ak ay Mbodj di ko diriger jox na leen instruction ba nga xamante ne mën nañ taxaw ak euh, ñi nga xamante ni moo di marchand ambulant yi ndax ñoom ñooy ay entrepreneur entrepreneur dëggantaan yi moo di marchand ambulant yi moo di sénégal yi jeunes yi nga xamante ne ñu ngi daan seen doole ay eh, Aïda Mbodj eh, mu eh, dafa di nga xamante ne moo di financement yi mu jox ko marchand ambulant yi moo gën financement politicien yoo xamante ne amoon na fi mu di une annonce assez forte du premier ministre Ousmane Sonko waaye itam profité na ci daal di féliciter ki nga xamante ni moom moo di je le le préfet le sous-préfet jëri fis ci liggéey bi muy def ak surtout euh, accessibilité bi discussion bi ak nga xamante ne ñu koy sensibiliser ki nga xamante ni moo di premier ministre nee na ah, noonu la ñu war a liggéeyante noonu la ñu war a ànd di liggéey ndaxte li ëpp solo moom moo di état bi ak ñu ko représenté bi ñuy liggéeyal ki nga xamante ne moom moo di le sénégalais lambda le sénégalais tout court donc lépp lu ñuy def dañ ko war a def ci diggante jàng mi ngi noonu premier ministre waxtaan na ak ndaw ñi waxtaan na ak waa Colobane waxtaan na ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy les riverains de Colobane opération de déguerpissement yaa ngi nii yéen a ngi gis le résultat mais le premier ministre a demandé à appelé à invité les gens communication boobu communication primature su ma toog ñu ne foofu laa nekk daal dara nii. ah daf leen nii daf leen nii nii nii nii. chef chef communication primature sama oto mi ngi ne sama oto mi ngi ne waaw dara nii benn yoon. benn yoon benn yoon dara nii rek. lañ ko jox. Baro. mi ngi noonu bëgg naa la bëgg mi ngi noonu di di wax ni li nga xamante ni moom la euh, premier ministre daal di euh, wax fi nga xamante ni moom moo di Colobane euh, daana waxtaan naak ndaw ñi waxtaan naak riverains yi waaye joxe na message bu am solo ci li nga xamante ni moom moo di sama gaay naa leen def na ci liggéey bu am solo di waxtaan mu ni leen tout doit se faire dans la proximité tout doit se faire euh, avec humanisme waaye itam tout doit se faire euh, dans le respect des droits des uns et des autres daal di rafetlu ki nga xamante ni moom moo di euh, liggéeyu je le répète je le répète plutôt euh, ki nga xamante ni moom moo di euh, le sous-préfet de Rufisque daal di invité administratif yëpp ñu daal di def comme moom di waxtaan ak askan bi ndax askan bi la ñuy liggéeyal loolu mooy li fi xew fii nga xamante ni moom moo di Colobane ñu ngi war a dem fële nga xamante ni moom moo di Anse Bernard ci li général bi ci plage bi nga xamante ne le premier ministre a une importante déclaration euh, ci li nga xamante ne moom moo jëm ci loolu donc euh, li ma doon wax direction fi nga xamante ne le premier ministre am na ci ay waxtaan bu am solo bu mu war a def foofu noonu jëmale ko ci li nga xamante ne moo di gestion domaine maritime bi waaye itam euh, li nga xamante ne moom mooy ay révélation euh, ay découverte yu état bi def ci li nga xamante ne moom moo di enquête yi mu doon mëne ci ñan ñoo occupé ak lu tax ak naka la ñu occupé li nga xamante ne moo di le littoral donc ñu ngi leen di jox di daje tout à l'heure incha allah euh, ñu daal di continuer ci avec Euh, euh, c'est li nga xamante ni moom moo di tey euh, doxantu premier ministre sur le terrain le premier ministre Ousmane Sonko au contact des Sénégalais. Colobane ñoo ñëw yàq bagage booy yi ci luñ tegut fenn ndax munoo luye nit munoo jël say kër def koy def koy ay magasin jël say saal def koy magasin ba pare ne Colobane du marché te Colobane ku ne xam ne ne marché la ndax ñi ñu fi jiitu boobu ba na ngeen koo ci wax mu ne la marché la te ñoom ñii di bañ affaire yi yëpp koo ci dem këram ay magasin la ko def ay bal lañ fa def wala suwaat beneen bagage Facebook Facebook. li ñu leen di sant mooy communication ñun entreprise de biir Sénégal di wax ak nit ñi gis naa liggéey bi nga xam ne suñu préfet bu tourisme moom fay def si fay def dëkk bi solution de remplacement évaluer les nga xam ne moom moo yor DER bu délégation à l'entrepreneuriat rapide mooy kuy ut entrepreneur